l'Assemblée nationale le 17 novembre. mais crise boo gis rek opportunité la ñun exercice de vérité bi ñu def àdduna yépp a ko saluer te mun naa ne leen dina renforcer la crédibilité du Sénégal sur l'international et au niveau du pays Amadou Ba nga xam ne moom ci pilleurs yi la bokk ndax nekk na ministre des finances nëbb chiffres yi nekk premier ministre nëbb chiffres yi dégg naa démb mu naan gouvernement un gouvernement ne doit pas crier au scandale kon moom d'accord na ni scandale am na moom d'accord na ni scandale am na dañu wax ni dañu wax ni ku aju bëggul ku téen ku aju bëggul ku téen waaye ma koy jox benn assurance rek mooy lii responsabilité ci mbir mi ak keneen ak keneen lii seen responsabilité faw rek ñu layoo kook askanu Sénégal layuñu kook man de askanu Sénégal parce que ñëw jalgati réew mi def naka sudul noonu pour mun a toog ci ay milliards ci ay fonctionnaires simples ba jàpp ni mun nga koy mujjee noonu dafay yomb Sénégal am na ñoo xam ne waratuñu woon wax ci politique amatuñu droit wax ci politique su doon réew yi dañu waroon am déchéance civique parce que wóoruñu ñu leen di dénk ñooñu dénk leen quartier sax wóorul wax ma laa leen dénk ab am na ñoo xam ne waratuñu wax ci politique te lii benn affaire la mais ci fan yi di ñëw bu ñu paree ba installé di ngeen xam la ñu def ci suuf si di ngeen ko xam fii di aéroport bii rek aéroport bii rek di gis kenn koo xam ne benn titre rek la mën a fëggee dënnam mooy may géewlu président nga am ci ay un hectare hectares ci aéroport bi dagg ko ay suuf su dul jeex di jaayaat yor say milliards toog foo ngeen di loolu yoon la est-ce que loolu dañ koy bàyyi mu romb ci réew mi su dee loolu sénégalais yi d'accord nañ ñu bàyyi ko mu romb parce que dañ koy teg ci ay maslaha mooy réew mi jaratul kenn di xeex ngir dara parce que pratique yooyu moo tax ndaw ñi waroon am liggéey amuñu liggéey ah moo tax faw mu jeex fi waaye waxuñu ko pour jooytu dama leen bëgg wax ni on a notre destin en mais liggéey bu ñu war a door la bis ni ki tey su ma déggee ñu naan FMI banque mondiale diw ak diw loolu yëpp baax na waaye ñooñu yoruñu suñu dund yoruñu suñu réew te fokk yéen ñëpp ngeen xam ko est-ce que ñun sénégalais yi pare nañu pour def li ñu war a def pour am suñu souveraineté est-ce que pare nañ ko loolu dafa laaj nag ñu bàyyi gis-gisu jooni jooni jooni jooni baaxul réew dañ koy tabax méthodiquement brique après brique dañ koy tabax ci effort ak sacrifice ñun am nañu possibilité financer suñu bopp est-ce que xam ngeen loolu dinañu proposer sénégalais yi gannaaw asa euh, élection législative yi nañ leen proposer des leviers endogènes de financement daal di andi des de financement innovants lu mel ni lancé am na ko tuddee woon diaspora bond may profito di féliciter la diaspora sénégalaise. ci seen taxawaay ak seen xeex ñoom it kenn demul ñu des waaye lañuy waajal buñ koy sànni duñ ko tuddee diaspora bond patriote bond lañ koy tuddee parce que li xew fii tey rek wane nañu waa réew mi seen bopp ñi ne fii ci biir réew mi kenn amul ëpp leen capacité de mobilisation kenn am ëppalewu leen capacité war làmb dara seen poos pour dugal ko ci loo xam ne njëriñu ñëpp la léegi dañ ma ne xayma bu njëkk bi ñu def rek nee nañu levé nañu déjà lu mat 500 millions te mbir yaa ngi continuer di dugg. ngàcce gaalaama Pastef dama ne kuy tibb tànk way wala ngay marquage culotte rek defal ñu gis loolu mooy. nit nit bu dee danga koo fan ba tax nga ne lu mu def ma def ko bu wootee arena Dakar arena xanaa kay suñ tegee ñetti fan nga woote Dakar arena bu levee cinq cent millions xanaa kay nga góorgóorlu ne man sax levé naa cinquante mille francs ma wàññil leen ko rek moo tax li ma bëgg ñu jàpp tey mooy nous avons notre destin en main nañu gëm suñu bopp dinañu def les réformes qu'il faut après élection législative bi dinañu def les réformes fiscales qu'il faut parce que am réew xam ngeen lu ko yor réew l'impôt moo yor réew dama bëgg Sénégal yëpp xam ko la ngay dem lebi ji ci biti l'impôt la rek boo xam ne da nga koo décalé parce que l'impôt bi ngay fayeku ëllëg moom mooy dem fay ji loolu kon nañ def les réformes fiscales qu'il faut gi ma gëm mooy l'impôt goo xam ne dañu koy wàññi ba mu yemamaay waaye ñëpp daje fay ko loolu mooy l'impôt gu baax ndax pare ngeen ci loolu kon nañu gëm ni ñun nous avons notre destin en mais yeneen réew yi li ñu def ak fi ñu jaar ba yegg fi ñu yegg buñ ko defee raw leen bokk na suñu koom-koom yi nga xam ne yàlla may nañu ko muy pétrole muy gaz muy zircon muy jën gi nekk ci géej gi yooyu yépp dañ leen diggoon it nañ ko renégocier ñépp ne mënuñu ko renégocier taxawal nañu commission yi liggéey baa ngi continuer te ni ma leen ko waxewoon laa leen koy delloosil incha allah nañ ko renégocier ba fu ñu doon am benn dinañ fa am juróom lenn laa bëgg ngeen xam engagement bu ñu mus a jël avec le peuple sénégalais bu soobee yàlla dinañ ko respecté am na lu ñuy respecté tey am na lu ñuy respecté dans une semaine am na lu ñuy respecté dans quatre ans waaye ci juróomi at yii li ñu waxante woon ak yéen nañ ko def dañ ko def ba mu mat sëkk loolu na dal seen xel moo tax nag ñetteel poñ bi ma bëgg a wax mooy li ñuy dëgmal ñun dama yàgg wax ni gis nga ku yàlla dénk nguur sa adversaire du opposition bi sa adversaire du opposition bi bul sonal sa bopp ci opposition bi réew mi boo liggéey li nga war a liggéey teg ko ci jub ak jubal ak jubbanti boo ne woon damay bàyyi sax askan wi moo naan duñ la bàyyi nga dem toog kon ñiy opposé nañ leen bàyyi ñu wax parce que loolu moo leen dese waaye sénégalais yeewu nañ de bu yaakaar ni wax wax wax suba ngoon mooy tax nga wëlbati sénégalais yi te ñaari ba ñetti cible lañu am cible bu njëkk bi mooy jeunesse bi yéen jeunesse bi politiciens yi gëm nañ ni mën nañ fexe ba wëlbati leen féewale leen ak Pastef ak président Ousmane Sonko ak président jomaay ci bëgg leen gëmloo ni ci bëgg leen gëmloo ni yéen a fi newoon di xeex yéen a ngi nii amul leen liggéey ñun suñu contrat musul nekk contrat wu kaa lañ jël réew mi paccoo ko kenn ku ne ci yéen bu amee profil bi mu war a am saa su ko réew mi soxlawee dinañ ko woo ne ko kaay dénk nañ la lii waaye nañu jàpp lenn jëriñi réew mi tekkiwul nekk foog tant que aw ma ñu ne ma nome nañ ma wala recruté nañ ma waruma mën a jëriñ réew mi loolu bokkul ak esprit Pastef kon lañu ñu déglanteeg yéen ñoo nga ci suba ngoon te résultat yi ala kulli xaal nañu dox quelque semaines quelque mois parce que bi ñu nee Sénégal vision 2050 gis naa ay politiciens yoo xam ne yàlla nattu na leen mënuñu wax ba Sénégalais yi déglu leen loolu nag du suñu faute ñun lañu ñu bëgg a gëmloo sénégalais mooy ah joomaay de nee na na ngeen muñ ba deux mille cinquante ngeen di doog a gis dara musuñoo wax loolu kër boo ko bëggee tabax dangay defar plan ñu defar la plan bu rafet R plus 5 waaye est-ce que da ngay xëy premier jour bi rek am cinq dangay da ci fondation chaîner teg brique chaîner ainsi de suite soo paree nga dem ci finition bi seconde œuvre bi di jënd meuble yi monter carreaux yi monter sanitaire bi projet boobu lañ leen tegal ñun étape bu ne étape bu ne étape bu ñu toll di ngeen gisal seen bopp meññ bi ñu ne lii moo meññ ren nañ ko séddale séddale bu yemamaay séddale bu maandu kenn ku ne jël ci sa wàll ñu continuer liggéey bi ba am liy meññ anne prochaine loolu la ñu waxanteeg yéen moo tax euh, gëm naa ne dañuy sonal seen bopp rek waaye mënuñu wëlbati jeunes yi ñeneen yi ñuy ciblé mooy liggéeykat yenn liggéeykat yi jakartamaan yi marchand ambulant yi nga xam ni bu ñu nekkee ci situation bi ñu nekk échec yi ñu échec ñoom ay ati ati at moo tax lii am ñu ne nag ñu ngi leen di tegal loo xam ne dinañ teggi ndànk-ndànk ba la ñu bëgg ci Sénégal parce que jeunesse bi moom la ñuy wooyee dividende démographique lii du nattu ci ñun c'est un atout atout boobu nag la ñu bëgg a utiliser de manière efficiente muy atout buy tabax réew mi ñun loolu lañu mooy suñu gis-gis ci jeunes yi waaye jàpp nañu jeunes yi lu ñuy utiliser la soo paree nga sànni ko moo tax élection bi ñu jëm élection bu am solo la nañu jàpp ni c'est l'élection la plus importante pour stabiliser le pouvoir qu'on a confié au président Diomaye mën koo jox les outils pour mu def liggéey bi mu war a def moo tax élection bu am solo la lañ ca fas def nag lañ ca fas yéene def nag looloo waral meeting bi ñu daje tey dégg naa sax ñu bëgg a nee nañu am na lu xew Bakel waaye ñun ñu naan ñi nga def meeting pour dajale dama ne confusion de genre baaxul de Bakel lañ fa war a def def nañ ko ba mu mat sëkk nit deewu fa ndax dégg naa ñu ne démb am na xale bu dee xale boobu Kidira la ko dale Kidira amul inondation ci jamono ji may wax ak yéen ñi ngi xool ndax du origine criminelle Bakel nit xiifu fa ndax gouvernement bi yóbbu na fa ceeb bu doy sëkk ak diwlin ak suukar ak lépp Bakel nit fanaanu fa ci mbedd mi parce que yóbbu nañ fa ay tentes armée monte na fa un hôpital kenn ku ne soo soxlee faju ñu ngi lay faj ba pare gouvernement bi dégagé na une enveloppe de huit milliards pour mën a taxaw ñi fa nekk kon loolu amul benn rapport ak li ñuy def fii tey li ñuy def fii tey c'est un exercice de transparence politique mooy guleet parti nekk ci nguur ne duma jël dërëm gu jóge ci nguur gi waaye ñun ñooy dajale li ñu am dem defi suñu campagne du ñu yóbbu oto nguur du ñu yóbbu xaalisu nguur loolu moo ñu dajale fii loolu amul rapport ak Bakel ñun sous notre magistère du ñu seetaan benn sénégalais barki démb gis ngeen Amadou Chérif Diouf mii yor finance su parti bi di secrétaire d'État aux Sénégalais de l'extérieur dem na Libye lafa fa newoon ci ay sénégalais ñu tëj leen foofu ci ay kaso dans des conditions difficiles yeb na leen ci avion delloo si leen fii ci réew mi. gis ngeen président Diomaye dem ba léeg yéen a ngi ko gis diggante Kédougou Bakel ak feneen ak feneen mu dem taxaw population yi jamono jii may wax ak yéen. depuis midi am na avion boo xam ne trois cent dix sénégalais la ñu jëlee Liban ña ngay dellu si fii Sénégal te vingt président Diomaye dina dem accueillir leen à l'aéroport mosuñoo toog di seetaan sénégalais loolu amut kon ñi bëgg a politiquer la misère des sénégalais ñi nga xam ne amuñu benn dayoo politique mënuñu dajale ñetti nit dem nañu élection gis nañu résultat ba ngir yàlla nañu bàyyi di politiquer la misère des sénégalais ñu fexe ba dugg wëlbati waa Bakel wala waa Kédougou wala waa feneen sénégalais yi dañoo yeewu ku am sa programme politique wax ko sénégalais yi bu leen doyee ñu woteel la waaye yàkkamti woo lu dul am ci réew mi barki démb immigration clandestine lañ jëloon immigration immigration clandestine depuis ñaata année la am fii ci Sénégal est-ce que fan yi dégg ngeen gaal yu bari di dem. parce que gouvernement bi jël na matuwaay bu mat sëkk yematuñu ci police ak gendarmerie waaye génn nañu armée nationale ba pare teg un système pour que ku gis ñu war a dem nga mën a woote ne ah am na ñuy waajal dem parce que notre jeunesse on ne va pas la laisser se faire engloutir par les océans duñ ko def fii ngeen toog ci réew mi ñu ànd liggéey réew mi dootuñu bàyyi kenn mu dem kon ci campagne bi ñu dëgmal lii ñu def tey lu am solo la ci te dinañu continuer collecte yi gëm naa ni balaa dimanche prochain ñu war a dajale campagne bi ñu war a démarrer campagne bi incha allahu dinañ ne militant Pastef ak sympathisants yi mobiliser nañu un milliard pour la campagne de Pastef man gëm naa ko mu des nag ñu war a dem ci campagne bi campagne bi ren dinañ ci def ay innovation yu am solo mooy yéen ñëpp gis ngeen barki démb ñu présenté leen li nga xam ne lu ama am solo la mooy la vision deux mille cinquante mooy le master